Vous savez euh, je pense que ce gouvernement-là wala c'est c'est c'est ce ce Pastef ce Pastef-là euh, dañuy fontoo sénégal yi je pense que haute trahison bi ñuy wax ñoom ñoo ko def parce que y a eu de jeunes qui ont wala des des des de des gens parce que c'est pas toujours du ñi dee ñëpp du ñu ay jeunes dañoo dee nekkete pour benn projet boo xam ne. mosul exister mi ngi soog a gis le jour il faut qu'on qu'on arrête quoi de se réjouir d'une chose boo xam ne dañ ko waxoon nit ñi depuis très longtemps depuis 14 ans depuis 15 ans il ñu suul avec un projet xale yi génn xeex ndax projet bi aar leen projet bi ñax ñàkk leen projet bi ana projet bi projet boobu mooy copier coller quoi PSE deux mille cinq ak ñoom seen xaw ma lan vision deux mille cinquante deux mille cinquante am na ab sëriñ bu ko waxoon de def naa scientifique yi sax wax nañ ko deux mille trente deux mille cinquante yàlla nañ fi dégg bàyyi bu nekk dañ ko fekkee euh, ndox mi maanaam dina nangu xaaju Dakar diggante Thiès ba baar ñi dina ko nangu. mais il li am la on parle de l'avenir on parle de l'avenir du Sénégal. booy def dangay defaale calcul yu bëree bëri deux mille cinquante ci lan la ñuy fekk ci lan la ñuy fekk xëy na bu ñu fekkul dinañ fekk suñuy doom wala suñuy sët. dina bi seen projet bi euh, fleurir. dama ne la avant boobu dina fekk dina fekk ndox mi lekk fu ne ba almadi liggéey ba dëkk sax boo moytu dina ko lekk nañu arrêté mënuñu jël doomi jàmbur bu ñu waxee ñu ne c'est de la politique moi j'analyse tu peux pas me dire que. ces jeunes là ont combati un projet ñii patt ci ñii laaj gi ñii ñàkk ci seen i kër ñii ñu yow xam nga ñu taal ci seen i oto ñii ñu taal ci seen i kër ndax la benn projet boo xam ne dañ ne day Sow li muy wax ci projet bi neexuñu kon dañuy dem taal këram projet bi li ci mag Sall bëgg a def nanguwuñu kon damay génn xeex na leen projet bi jaral seen bakkan projet bi ana projet bi un projet boo xam ne c'est la même personne bi bind waa bi bind PSE bi moom moo bind moo leen bindal projet bi ci loo xam ne booy yi doon xeex projet bi da leen wan ne Macky Sall li mu yor baaxut PSE baaxul FMI baaxul eurobond baaxul yow nga ñëw xale yi nga dugal loolu yëpp seen bopp yi sénégal yi nga dugal loolu la seen bopp yi ñu xeexal la jàppale la soutenir la ñii dee ñii patt ñii laaj yi ñii ñàkk seeni alal ñii piyee ay banque ñii piyee ay Auchan am ñoo xam ne fa la ñu jaalee ndóol ndóol ba tey nga toog ba tey génneel ma benn projet boo xam ne attends ki ko ki ko bind différence bi mu am mooy bee passé il avait il était barbu euh, wala bee il n'était pas barbu aujourd'hui il est barbu c'est <laughs> le vieux là ki nga xam c'est de personne problème bi mooy compétence la ak ak expérience il faut qu'on toujours entré dans le débat de personne il a toujours indexé du doigt que Macky Sall était incompétent li fi jëlee Macky Sall ci réew mi nañu waxtaan wax dëgg ca la fàtte xaju fi peut-être toi mën nga fàtte parce que ce métier peut-être là mais man je peux pas oublier parce que j'en ai souffert et samay mbokk on en souffert et je connais des gens yoo xam ne dañ cee ñàkk seeni doom il faut qu'on soit sérieux on nous a parlé de projet bien vrai que lii mën na ñëw mais il faut ñu wax sénégalais aussi que le 2000 le 2050 là <laughs> c'est 2035 da nga koy leeral Sénégalais yi si vous êtes pas d'accord ngeen ne ma soxna Ndeye on n'est pas d'accord que 2035 c'est waaw bëri na ay similitudes boo xoolee c'est la parce que. Euh, parce que c'est la même personne. Euh, parce que yaa ngi gis en fait euh, par rapport aux agropoles xam ma ki sal peut-être les agropoles ya les agropoles je crois que y a cinq agropoles. peut-être projet bi dafa jël ay retard mais quand même ñoom ay pôle économique la ñu wax te boo xoolee en fait c'est c'est la même chose. dama ne la tibb fii la teg fee ñor di fii la. la seule différence mooy peut-être par rapport ak financement yi. et des jeunes. et les gens et des Sénégalais sont morts pour un PSE bu ñu ne baaxul Amina ah, on peut pas laisser passer ça. je pas d'accord parce que je pense que c'est mm-hmm. pas un problème de personne compétence la expertise ak euh, expérience. Mm-hmm. parce que booy xool le premier ministre a bien évoqué devant le public que ni euh, euh, Jérôme Gorom Ndiaye n'a pas travaillé seul il a travaillé avec la primature et l'expertise du ministère de l'économie. avant ça qu'est-ce qu'il nous avait dit. c'était 400 personnes xaw ma ñaata ñoo ci liggéey on nous a jamais parlé de ce monsieur là. l'ami a été pas là on le paye des milliards ci dëkk boo xam ne dañ ne en ruine pour mu defar lii Amina soyons sérieux il y a des choses yoo xam ne on peut pas laisser passer comme ça alors que différence bi ñu am aussi la travaille gratuitement bon ça se ça se pourrait nañu bon mi ngi noonu xam nga tey on peut pas dire que le PSE n'était pas bon des jeunes sont sortis on sont morts pour ça des gens ainsi de suite ainsi de suite et ce PSE là c'est la c'est la même dañoo tegg bi teg fii am ñu ci yokk am ñu ñu ci yokkaat ba tey xam nga foofu lan moo ci gënoon lan moo ci gënoon a neex xam nga Ousmane Sonko dafa ne waa c'est la prémature ñi ñoo ci dàngal mais Ousmane Sonko Diomaye moom ils sont même pas capables de te dire que lii moo ci nekk alors que Macky Sall ak Amadou Ba dañoo toog ñoom seen bopp di tojal seen bopp PSE bi ñoom ñoo toog seen bopp di ko toj li ñuy def bërki de eh, kero démb ñoom ñoo moom ak Amadou Ba ñoo toog di ko def ak ñi ñu ànd liggéey ko Amina li ñuy wax dañ koo xam du problème mu personne on parle de ce qui s'est passé récemment yàggul pendant quatre on a on a vécu un calvaire Sénégal nekk dessus en dessous yëngu mais attends les gens yoo xam ne ne ils se sont pas encore remis de ça et aujourd'hui on vient ñu dire que projet bi taxoon sa doom dee mm-hmm. yaay bi yaay yow yaay yow mii sa doom dee ndax projet bi projet boobu musul am mi ngi soog a am démb ñi ngi koy soog a teg ci kaw taabal bi DPG bi ñuy félicité pour la ñuy di félicité DPG boo xam ne yaa ngi ko war a def biir assemblée nationale ñu ne DPG bi il en a profité il a fait ça hier Mais c'est catastrophique de, de se réjouir de ça, quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Pour, pour, un pays en ruine, euh, euh, pour un pays quand en même. ruine, un pays en ruine, boo xamante ni euh, euh, coût seen programme euh, 2025 2029 déjà euh, ils ont besoin de 18 000 496 083 milliards pour un pays en ruine financement yi. financement yi est-ce que c'est censé quand on entend vraiment ça à côté on nous parle d'un pays en ruine oui, c'est une question très pertinente waay waay waay parce que tey jii euh, moi j'y avais même pas pensé ah mais tey jii mënoo ne dëkk bi on est un pays en ruine on a peut-être déficit euh, boo xam ne ni ay 10 pour cent la ba pare nga ñëw ne je vais dinaa génnee dix huit mille milliards man loolu rek moo ma jaaxalan c'est c'est c'est l'équation à deux inconnus wala un seul inconnu mooy tey ji fa la ñuy ñu dire que ils vont récupérer ça ci <laughs> oui parce que la traque là est-ce que mën nañ ci jëlee loolu parce que euh, parce que tey ji ay lan ngay euh, bon euh, loolu rek moom moo ma si jaaxal léegi nag man j'ai une crainte en fait mm-hmm. par rapport aux aux entreprises waaw parce que xam naa ni pression fiscale bi nar na metti quoi mm-hmm. pression fiscale bi nar na metti te ñoom bon je sais pas euh, dafa mel nii lépp ci impôt lañ ko bëgg lañ ko lañ ko bëgg a wéer en mhm. fait te état day am foo xam ne nii sax parce que dañuy naan exonération